Une revue de presse. El Hadji Ahmed Aydara. Bismillah. kër maam boo yëngu na dee tribune yéene kaay ne commission bi nga xam ne day waaw moom lañ dénk daal lépp lu jëm ci wàllum yar di discipline ca parti démocratique sénégalais ke dakal na nag maanaam déglu bi nga xam ne kon waroon na koo déglu nag ñoom Modou Diagne Fada ah, ah, waaw waaw ma ne la Abdoulaye Wade day arrêté na lépp i grand place de dellu ginnaaw la dee waa kër Abdoulaye Wade yee dellu nañ ginnaaw te mooy yéene kaay ne ko dëgg la dëgg la déglu bi nga xam ne nag nañ koo déglu ñi nga xam ne ñoo fipp day waaw ma ne la waa kër Abdoulaye Wade yee dellu nañ ca ginnaaw dee mbir ma nag dikk ca jamono joo xam ne ñi nga xam ne ñoo fipp ci biir parti démocratique sénégalais day niki démb nag la waroon a commencé déglu dee mbir ma kon teere ja ca samedi ca ak Modou Diagne Fada waaw waaye Abdoulaye Wade nag jël na dogal dee daal koy dakal ba jëmi jamono Le Quotidien ne kay ah, ne ah, a ne ma dikke ñang day tax na nag ba mbir bi kon sedd ni la tey mooy yéene ne ma dikke ñang la ak daaw dañaa waaw waaw tribune yéene kay ne même bu dee sax am na ñeen ñoo xam ne daal waaw la ñuy dox nag mooy jàmm kon daal di cay am jàppale ne nag coowal parti démocratique sénégalais loolee waaw jàmm amagu ba de maar ci waaw parce que Modou Diagne Fada daal dinay jëlub dogal de fas yéene bindal kon nag am këyit Farba Senghor ngir ñu dem kon fa ma xam ne kay benn ngir jay tuuma yi nga xam ne kon moom la ci noom noddu kii di Modou Diagne Fada waaw mu daal di koy dëggal ci kanamu atekat bax la la ko wër waaw ma ne la Macky Sall ci boppam kon ko defar waaw ca gàmmu ji ko fa na ci réew mi quotidien Niass Kumba Abdallah jël nag suñu république kon dëkk bi le daal di koy soppi kon kër buur ab royaume mar d'Italie njiital Walfadjri yamuj parce que Seydi Lamine Niass neen ci boppam kon fi mu nekk ni am trop tànge ñàkk goo xam ne kenn xamul lii lan la moom la ñu ne am pauvreté extrême la ilaha illallah moo laaw sacré cœur ba nee ma Sidi Lamine Niass waaw nee na dama ne suñu dëkk bi laa wax dafa feebar notre pays est malade amuñu ndox amuñu courant xam ne kon nit mën na caa tegub loxo waaw dañuy nax sénégalais ci plan Sénégal émergent laa lu leen neex la ñuy def respecté wuñ sénégalais yéen kaay gi waaye Macky Sall day waaw ma ngay teg ay jéego rek wutali kon 2017 parce que bépp ndol fànnu politique bo xamni kon Ousmane Seck Ndiaye bàyyi woon na fi wa Macky Sall tek na ci loxo ah. mané la juróom ñaar ci ay jege ñaalé Ousmane Seck Ndiaye ñom la Macky Sall kon recevoir ci appartement privé am ngir mëna Dakar lok Ahmed Fall Braya tender Ndar xam ngeen ne Ahmed Fall Braya nak mom ci élection locale waaw da solo lol Macky Sall ak wa kërëm mané la Macky Sall mé dalal na Mortal dalal Joola Ndiaye dalal Ngone Thioune dalal Ndak dalal Mamadou Diop dalal Amadou Diagne dalal Aladji Malick kan Massour Ndiaye njiital dooleel yaakaar waaw né na Benno Bokk Yaakaar gi lee naxaate la mascarade politique la tey lii le mi nga xam ne kon xam le ne ne danañ ko yokk marti taal ma ne la M23 ak consuméristes yi waaw ñoom day yi nga xam ne nag ko kon seen cité boobee lu ci tolloo ñeenti ñaar ci ay kër la ilaha illallah xaalis ba nga xam ne kon perte ko ca daal toll na allahu akbar termine yéen kay ne te ndeysaan mënuñ dara nag fi mu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom Macky Sall daal mooy seen sànni tàccu seen yaakaar gu mujj ñoom waa cité di visité cité boobu Aline Badara Diop mësta xalaat ne yàq yi nga xam moom la président yëkkati day moom la a waaw jàpp leen ne a de marti Italie la kon am rapport di am kayit daal di koy jébbal ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo waaw waaw ngir ka ca a jot kon jotax te nag la gouverneur bind ca kayit googu mardi Italie mardi Italie kër yéen daaneel bari na panneau publicitaire yi Barthélémy Dias daaneel bari na libération yi ne kay ne coowal panneau publicitaire yooyee waaw yënguwaat na ca yoon de Barthélémy Dias day bu ko tëg bët nag ah, ah, waaw waaw ma ne la procureur ci boppam waaw bàyyi na kon enquête kat yee ca kaw Barthélémy Dias de réew mi quotidien na gis nga Barthélémy ya ña nga xam ne rek dañuy tabax te tabax ba jaarul yoon ci ñoom la jublu ah, ma ne maire ba Barthélémy Dias ne na dak maître El Hadji Amadou Sall day dakal nañ nag fa mu nekkoon tribune yéene kaay ne ata bi fanweeri fan coorug sooy la dee waaye maître El Hadji Amadou Sall ko démb bàyyi nañ ko day këram lay wooree koor googe Le Populaire nee na suukar day bokk na nag maanaam kon ci yi ñuy gën a kon ci weeru koor gi waaw waaye xuloo bu taatar moo am nag ca suukar soosé parce que waa ina quoi danoo xam leen ne suukar dana ñàkk laa la wax waaye direction du commerce compagnie sucrière grossiste yi borom bitig yi clients yi dañoo weddi loolee inaa ko wax te inaa ko nee nañu suukar dana manqué cay <laughs> alaaji xam nga koor jaamug